wooteem boobee ci la jàmbar ji ñuy fàttaliku tey maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñëw wuy mu nekk wuy si boo xam ne nag ba mu ñëwee fekk sëriñ Touba ca Mbakke Kajoor dafa am lu mu xaatabante ak moom dafa wax Serigne bi ne ko. man de génnewuma sama kër lu dul di sakku sëriñ bu ma eggale ci yàlla bu egg ci yàlla bu may eggale ci yàlla di sëriñ boo xam ne xam-xam yeeg leer yi yiy tëbbu day leer muy xàmmee sew-sew yaag yu dëgg ya kooku daal moo ma taxoon a génn di ko wër bi waxante sëriñ bi loolu it nag nga xam ne moom kon baatu egg ci yàlla rek mooy yitteem te sëriñ bi eggale nit ci yàlla rek nekk yitteem dañ caa xaatabante xaatabante boo xam ne mooy tegtale yitte ju rëy yitte ja mooy lan sëriñ Tuubaa nongul na Cheikh Ibrahima Fall ne ko li ngay wut am na fi waaye xamal na ko ne ko yitte nag moo ci tax a jot ngir yitte jooju nag mën a leer dana ko man de bi may ñëw jamono man Ahmadou Bamba bu fekkoon ne fekkuma fi benn jeexintal benn màndarga boo xam ne dana ma tegtal jeexintal yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñëw naa fekkuma fi alquran fekkuma fi hadis yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye fekk naa fi asamaan si mu daan ko tiim ak suuf si muy dox ci kaw ci kawam ci sama setlug yéene ak ci sama dëggal danaa am ca moom lépp lu ma doon sàkku kon loolu defe naa yitte la joo xam ne ku amul ak dogu amuloo yitte mënuloo màndargawu loolu te moom nam waxe loola ci biir waxam noonu la ko jëfe ndax fekkewul jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir diggante yu sori moo dox seen diggante waaye yitteem ju rëy ak yitteem ju kawe ak dogoom may na ko lam doon wut ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam lépp mu am ko kon looloo tax mu leeral maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko bu ma fi fekkuloon dara waaye asamaan si wóor na ma ne daana tiim yenent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi it alayhi salaatu salaam daana dox ci kaw suuf bi di de ko tiim ci sama dogu ak sama yitte danaa am ci moom li ma waaye gis nga taalibeem bi moom it ci dogoom gu rëy ak yitteem ju rëy lan la wax may dey bi may ñëw jamono bu ma fi fekkuloon dara ci ki may wër gisuma ko muy dund waaye tegtal nañ ma ne lii kat bàmmeela ma danaa sax ca bàmmeel ba di ko liggéeyal ba am li ma doon wut kon day mel ni diggante boobu wane na yitte ju rëy ju kawe joo xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine am na ko wane ko ci kanam Serigne Touba waaye fekk na sëriñ bi euh, aleykum salaam jiital ko ci dogg googu mu am ak yaatu googu mu am mu daal di jaayanteeg moom nag jaayante goo xam ne. jaayante dëggal la comme ni sëriñ bi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa loolu amee ca mbakke Kajoor mu am yitte yi moom it xam ne li muy wut ci kër sëriñ Tuuba ak dogoo ko koy may yitte ju réyee ko koy may pas-pasa ko koy may mu won ginnaaw mbooleem yiy tënk doomu aadama gàllankoor ko ba li muy wut du ko mën a jot te moo di noonu doomu adama eh, li si wax ne maa ngi sant yàlla ca xafaaba wax ne maa ngi sant bi ma yàlla muccalee ci noon yi noon yi mu doon wax mooy yii di gàllankoore xataa ba xal bi lamma lahu sallamani min al ada min al ada yooyu mooy an nafs wa shaytaan wal hawa wa dunia ñeenti noon yooyu nag ndax ki bëgg àdduna dox jëm ci yàlla dana ko jafe ki bakkanam not bànnee xam not ko seytaane am ci mu wàll ngir mu yàgg dana jafe moo tax Cheikh Ibrahima Fall won ginnaaw àdduna te nekk koo xam ne fa mu bokk palug àdduna dafa am di yilifi ci dammeel di man di nguuru mu won ko ginnaaw wuti yàlla waaye fexe ba not bakkanam bi nga xam ne day digle ab safaan xeex ak bakkanam boobu ba lépp lu mu bëgg ci kër sëriñ bi te ak suufe di ko maye ak ne ci ron di ko maye mu not bakkanam ba man ko def bànneex bii réer laate mu bañ am genn bëggul sëñ Tuubaa li sëñ Tuubaa ne woon sunu bëgg suñ bànneex topp na lan wana hawanan taxa bil xaq wal xaq diinuna bi iqlaami si rushi xada kullu murshidi moom it mu jël bànneexam bàyyi ko ak euh, mi nga xam ne nag moom it noonu la buy songe gis nga gànnaay gi gën a dëgër la Cheikh Ibra Fall yoroon di ko jëfandikoo te moo di laa ilaha illa allah nga xam ne seytaane moom ci tudd yàlla lay dawee kon not gim not ñeenti noonu yii nag moo tax mu man a dox dox yin wu jëm ci Serigne Touba seen xaatabante ga nag nekk xaatabante gu yaatu bokk na ci li ngay xam ne adduna tax koo jóg sëñ bi xamaloon na ko ne lu toll ni basan doo ko am ci àdduna am cërub àdduna boo xam ne danaa ko jël sëdd la ko ngir ci li ngay wut lu toll ni batan doo ko ci am wala mbaar mu lay tiim Cheikh Ibrahima Fall na ko soxlawuma fi lu toll ni conkooru karaw soxlawuma ko ci kon lu indi barke beeg dëlëf dëlëf ji mooy sellu pas-pas ak dogg gi amoon ba sukk ci kanam Sëñ Tuubaa di jaayante lam doon faxase ci wóomam yooyee mooy barke boo séen waaye lépp Cheikh Ibrahima Fall moom ëllëg la kon ginnaaw looloo indi dëlëf delef ji nag mun demee ëllëg nan lay mel kon ëllëg lañuy xam mbiram dëgg-dëgg ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarale walaaw yafalu maa yusaw Cheikh Ibra Fall mu jaayanteeg Serigne Touba loolu ci dogu nag di tërbiyee Serigne bi ci di root di buub di taxan di defaral lépp loo xam ne bëgg sëñ bi la mu di ko def wane it woonu yoonu war ma ci ni ñuy fonk sëriñ bi ak kii mu ñëw nan la nit mën a def ba jëriñu ci moom jàngale ko nga xam ne fi ne tey bari na ku toog di contexte Cheikh Ibrahima Fall te 10 pour cent mu ngi génn ci yëfam ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall lu ko waral mooy kun sukkal ci suuf rek Cheikh Ibra Fall am na ci wàll ndax moo ko fendi ku nit nuyu dindi mbaxanaam Cheikh Ibra Fall la ko fendi ku nit mu yow sant Cheikh Ibra Fall faw def la nga def sangit Cheikh Ibra Fall la ko fendi kon loolu xanaa dees na dégg na ku tegtale lu baax ku la coro yi lu mu ca am nga am ko ci kon defe naa ku man a yónni nit mu wuyu mu dem doxal la ànd ak xol bu sedd liggéey dugg ci wata daw di la ko yët si bu la gisee fàtte boppam ku ca am dara am na lu ca Cheikh Ibrahima Fall ndax moo indi yoon woo moom la doon jàngale mu jàngale loola nag tax daawul nu nga bokk ak sëriñ bi ndab daawul nu nga bokk ak sëriñ bi néegit noonu la Cheikh Ibrahima Fall daan def waaye yëmu ca loola da caa boole di ko jàngale rek lu may kenn nuyu sëñ bi yor mbaxana wala kenn nuyu sëñ bi jox ko benn loxo wala kenn toogandoo moom ci kaw wala nga nuyu ko di tàllal sa tànk nga xam ne jàngale na kon nan la nit di àndeeku sëriñam ngir mën a jariñ loola ba mu amee it yitte jure jooju Cheikh Ibrahima Fall am boole ko taxaw guddi di sikar di roor di jëf-jëf yooyu yépp waaye cofeelam nag moo tax lim bëgg lépp mu am ko ndax cofeel mooy fonn ba ak topp lépp ci àdduna mi nga doxee ci bëgg ku bëggut dara la nga bëggut mënu laa jëriñ du la jaral sonn ki bëgg xaalis sax gis ngeen ni mu ko teel a ki bëgg as ndaw sax bu fekkee ne demandé na ko ak mbëggeel mu rejeté ko mu dof mbëggeel la ko waral nga xam ne ñaari baat yoo wax mu ne la sama ndaw si boo ci waxoon baa nga jàpp ci xam nga loolu ak bëgg ko waral bëgg nag ba bëgg jeex bëgg yàllaa ci gën te bëgg yàlla bëgg nituk yàlla te bëgg nituk yàlla tegtal la ci bëgg yàlla inna mahabbata awliyaa al la isla yuhibbuhum ila man aradalah an so yàlla kum nëmmul nga texe lu def ci sa xol nga bëgg nitu yàlla ndax bëgg nitu yàlla tegtal na ci bëgg yàlla sa borom moo tax sax euh, borom xam-xam yi am na ci ñu wax ne bëgg nitu yàlla kenn jaamuwul yàlla lu toll noonu ku mel ni Kurmaani waxoon na ma taxabada mutaxabidun bi ak aksari min taxabubin ila awliya taala li anna mahabbati awliya taala dalilu ala mahabbatin azza wa jalla saa yoo bëggee nitu yàlla rek yàlla nga bëgg ndax boo noonoo nitu yàlla duutu yàgg nitu yàlla ki nga noonoo yàgg yàlla ndax man aadani waliyan faqad adantuhu bil harb yàlla dafa tëkku ku noonu ab xejjam ba tax mu ne képp koo xam ne noonu na sama xejj sama wali kooku kat déclaré naa ko ger te loolu lu yomba firi la lu yomba firi la lu tax lu yomba firi la fi ne da nga dékku ne bëgg naa yàlla bëgg naa yàlla yàllaa fi nekk nañ japp yalla nit de suko top nangam nangam fekk lu soof lay wax yalla mi ngi mel président de la république nga ne bëgg na président de la république mais ministère am yépp ma soof gouverneur mi lañ ma soof kumu fal mu soof la ba nopp nga bëgg ne neex na la ginnaaw bu fekke ne bu la nexé kogam bu la nexé neex na la kon yalla kumu tan ba ne samay xejje lañ ah wagar leen ak wormal leen dafay war teef loolu moo tax Cheikh Ibrahima Fall indi worma diggante ba Serigne Touba di ko liggéeyal kon ci cofeel ndax cofeelay tax sa xel duutu nekk ca kër ya nga bàyyi ca gannaaw du ne ci alal joo jàpp ne rëcc na la sa xel du ne ci wurus du ne ci ay soxna loolu ci cofeel rek lañ ko mën a amee gis nga sëñ Tuubaa loolu moo tax digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla bëgg yonent bi moo ma fàtteloo ci sama xol may bëgg wurus walla xaalis walla ay dëkkaale walla may bëgg dara kon maam Cheikh Ibrahima Fall ci loolu la jaayanteeg Serigne Touba nag. di ko liggéeyal sëriñ bi jóge Mbakke kadior Cheikh Ibrahima Fall and ak sëriñ bi ñew Mbakke Bawol def fa ab diir ay kujite sering nungu ku jité sëriñ touba julli ndax sëriñ touba rek moy imam bi mom lay tek ci kanam ba ni sëriñ bi sañce Daaru Cheikh Ibrahima Fall Nek ke Darussalam di liggéeyal sëriñ bi sëriñ Tuubaa it Lemu nek darussalam daaru salaam mi ngi raas pàkk bu ñuy wax Tuubaa nga gis ne man nga ne lu jëkk le Cheikh Ibrahima Fall jëkk am man kami Darussalam takdir salaam te bi kon na boo seetloo la tër bii nga waroon a doon diggante bu gàtt la ndax doon na mat fanweeri at ci lim bëggoon a jëf moom ngir nim toll waaye nag nee li dammeel Sàmba Lawbe yilif Kajoor la tërbiyewu Sëñ Tuuba kon loolu diir bu gàtt lay doon ñetti at yu manki lay dekk loolu nag bi sëñ bi ñëwee Tuuba gis nga ñeenti daaraam yooyu nga xam ne da koo séddale woon sëñ Mandumbe sëñ Daam Abdourahman Lo sëñ Massamba Diop Cham sëñ Ibrahima Fall kii féete ndaamaatu nga gis niñ niñ taxawee woon ñeenti xibla yi penk beeg sawu bi Cheikh Ibrahima Fall nekkoon euh, Touba Fall nga xam ne côté boobu noonu lañu installé daara yooyu bi ko sëriñ bi gërëmee it takkal ko ay garaat ci yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la mayit gërëm naa la gis nga sikar boo gisee mu sax ci Baay Faal sëñ Tuubaa bi muy sëñ ci booba taalifagun xaside yi nga xam ne ay am ndaax la lu ëpp booba limi bind lay jëm ci fiq wala tasawuf wala tawxid waaye gis ngeen ne li ëpp ci xasida yi am daax yi daanaka Tuubaa la koy tàmbalee ndax mag ñi ko doon jàng bokk na sëñ Mor Kunaat xam ne sëñ Afiya Buso ak ñenn mag ñi waaye sëriñ bi sax ca la masaa jëm ci jàkka ji mu nekkee Touba dañ koy jiital ak sikar booba sikar lañ daan def fii jumaa ji nekk mu def fi mbaarum ngeer ak dóor dóorum ngeer nga xam ne sikar lañ daan def booba ndax bobu ñi ngi ci ak tërbiya go xam ne saalikuun yi ñu soobu jëm ci yalla li ñuy dundé li gëna gaaw dundal seen roh moy tuddu yalla wax señ bi di wax ne khayru ta'amil li saliki dawa mu dikri seen malik mo waral ñu daan sikkar bu ñu ñëwee sikkar ba agsi ñu julli wañé ko ñu di ko wat ak sikkar bam ñew tabbi wat ci bir mbaram momi le benn mu su jox leen ndigalul nu dal baa mu bay leen bàyyi leen nu wéyal di di sikkar sikkar soosee na dëkkut ba gis nga cosaan li Cheikh Ibrahima Fall moom ci loolu la jaar sikrul ilaahi la sax yenn doo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy bàddil ko Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall moom sikrul ilaahi rek ci la sax ak di ko liggéey di joxe ci la jaar bañ xey badil ko la wax badi xam lañ ko badil lolou mu nekkon nak mom Cheikh ibrahim Fall sax ca loola di ca wëy ak ne ca loola di ci jëf biko ko touba Tuubaa da ko del na nga dem ndar sëñ bee waxon Cheikh ibrahim Fall na nga dem ndar ci charte nak del dox guddii tay nopp lu fi ne bokk na ci li li li sëñ bi doon wax Cheikh Ibrahima fal bi mu ko gërëmee loolu la ko sant mooy del dox guddi tey noppalu bëccëg nga xam ne Cheikh Ibrahima fal bu jógee di dox ci guddi gi ba bët set day noppalu loolu la ko sëñ bi doon digal ba ni mu demee ndar xam ngeen ne jaar na waa daan ca kër te sëñ jéeri walaan sugu am na histoire yu yéeme yu xew sax seen diggante ca loola yoo xam ne wane na baatinu Cheikh Ibrahima Fall waaye wane na baatinu sëñ jéeri walaan ndax la mu junju na mu ko tekkee Cheikh Ibrahima Fall ñëw ndar ab diir Sëriñ Tuubaa door a jot ndigal lu tax mu ñëw ndar kon sëñ Touba Cheikh Ibrahima Fall moo jiitu Serigne Touba ndar Cheikh Ibrahima Fall ko fa jiitu ba mu ñëwee ndar rek moom Cheikh Ibrahima dafa taxawee taxawaay bu yéemee ndax sëñ Touba def na ci moom leer goo xam ne waxuma nitu yàlla waaye ñi nga xam ne ay nasaraan lañ sax Cheikh Ibrahima Fall daf leen di convaincre. ci comportement ndax nañu bàyyi xel ne nag Cheikh Ibra Fall fatin la woon muy intellectuel la woon boo xam ne dafa ñaw ku yeewu la woon te loolu muamala bi nga xam ne doon na ko def jëflante bi mu doon jëflanteeg nasaraan bi teg tale na ak yeewoom loolu nag biñ demee ba ci 1895 ci mois de août ba sëñ Tuubaa ñëw ndar looloo tax mu fekk fa Cheikh Ibra bi tubaab bi atté seigne Tuubaa 5 septembre 1895 defe naa bisu alxames la 5 septembre bob 1895 defe naa alxames la dajal procès bi tàmbali 9 h ba 11 h kéré kere keroog atté seigne bi rek dañ ko neub pour ñu xam fi seigne bi nekkon sax jafe na waye Cheikh Ibrahima Fall mom ci ay gëstoom moo trouvé fii sëñ Tuubaa nekk bi sëñ bii dem ndakaaru nag ñi mag ci ñi doon gunge sëñ bi mooy Cheikh Ibrahima Fall murid doxul mam dox jooju sëñ bi la muy jóg dagane di tudd Cheikh Ibrahima Fall la ca jënju moom la sëñ Tuubaa waxoon na ko ca tàggatoo ba ana lam azhab ila la xidmatin xumtu biha wa silaahuha fii hasa safar faqat man déw ma nu may ci liggéey boo xam ne dara mënta yéwén lu may ci tukki bi toog du ko faj kon bu dem amutoon luy xew dogoon ko nag dem gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñépp dem niiraan kon loolu màndarga la ca mu mel nii bi la nag tàggatoog sëriñ bi sëriñ bi dem ci géej gi bi Ibra des fi di liggéey nga xam ne léegi léegi lenn li da koy jox Maam Mor Jaara borom Saam mi magi sëriñ bi ndax sëriñ bi ko dénkoon nu batale koog moom da ko gor la suy jaamu yàlla du néew ñaxam lenn li léegi léegi Maam Cerno boroom Daarul Muxti la koy jox ngeen njabootu sëriñ Tuubaa gi ak li mu yor nga gis taxawaay yi doon taxaw. ak ni mu doon soññee ñoñam ci ab liggéey boole ko waxtu wu ne ay addiyam di fekk sëñ Tuubaa ci géej gi moom maam Cheikh Ibrahima Fall yitte juréy jooju mu am nag may na ko ba am na bis ku ñëw ndar ku jóge ndar dem Gabon gis sëñ bi sëñ bi ne ko foo dëkk mu ne ko ndar mu ne ko ndax xam nga Ibrahima Fall mu ne ko mu ne ko boo demee nee ko sëb sëriñ nuyu na la sëñ bee ko seereel na ko sëb sëriñ nuyu na la li señ mi ne ci geej gi lepp mu ne ci liggey ak pas-pas ak yitte ak ak dogu bi señ tuba joge ci geej gi gis nga ne bokku na ci ñiko ko teeru ndax ba señ bi wacc ci bato bi ku ko boot yóbbu ko laminaas Cheikh ibrahim Fall lolu amna menen mbir mu mi jangale amna lenen lu mi woné ci préparation ak yewutem ba bi señ bi ñëwee mu am fu mëna loola dëkkul ba ni sëñ bi demee ndar def décharge bi ak fi mu jaar yëpp ba dem gànnaar bi mu demee gànnaar gis nga ne rapport bi nga xam ne tey tubaab yi def nañ ko pour sëñ tubaab jógee gànnaar war a dem ci yéen loolu ci demal si dox doxinu doxu Cheikh Ibrahima Fall tey relation digganteem ak colonia bi kon mu amoon pas-pas bu rëy am yitte ju kawe am doxin woo xam ne moom la daan dox moom Cheikh Ibrahima Fall musta dacc amul jenn yitte amul wenn melokan lu mooy rek luy beugug señ bi moy beugug Cheikh ibrahim Fall kon gis nga ne bi señ bi nekk ci nit nga xamne bi señ bi ñew njaareem booba Cheikh ibrahim Fall Cheikh ibrahim Fall ma nga Thiès nak bi señ bi nekk njaareem ci la ko dooro joge jógee Thiès fekk ci ko njaareem ak gis nga ne def Thiès ma ma Madina Fall ak fu ci nekk nga xam ne Thiès rek boo fa demee la mu fa occupé ak la fa xew wone na taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ni Cheikh Ibrahima Fall doone woon di jëf daaru bayreem jooju àll boobu nga xam ne fi ne léegi foofu yëpp ci gor la ak taxawaayu Cheikh Ibrahima Fall loolu kon démarche la boo xam ne yitte la jum doon dox ci digganteem ak sëñ sëñ Touba jotewul nag ak cër bu rëy bi mu am ci lim jëfal sëñ Touba lim ko jural xam ngeen ni waxtu wu ne sëñ Touba gërëm na ko te daana digle ñu màndu ci mbiram it digle ñu màndu ci ba gaawu bi nga xamee ne dibéer ji altine ji lañ mu jóge sëñ bi gaawu boobu sëñ Touba woolu na ko ba mu ñëw mu ko Ibrahima Fall gërëm naa la am na sëñ Touba gërëmee na ko gërëmee na ko nu ne sante na ko noonu ngir taxawaay bu rëy bu mu am waaye lan ngay jàngat ci moom nag boo bëggee xam loolu dangay xool ñi bokkoon ak moom jamono dana ci kanam sëñ Tuuba te doon boroom yi xam-xam ñooñu ngay xool nekkoon ci keppaarug sëñ Tuuba doon borom cëri yàlla ba noppi liñ sedd Cheikh Ibrahima Fall. boo xoolee tey ku mel ni sëñ Mbakke bu so mu mel ci charia ak ni mu joxewoon woon Cheikh Ibrahima Fall ab cëram ak ni ko Cheikh Ibrahima Fall moom it ba gis nga sëñ Moulay Bousso mii doomam bi mu koy marti yàlla dafa wax ne xat bàyya a cheikh xidaman xaadiman fatina yabgi ridaahu wa anhu yaxmilul kulafa jaayante nag sëñ Tuubaa bu yàgg di ko liggéeyal waaye lépp lu muy def nag ngërëm moom rek la cay sàkku waaye sëñ bi yar na ko tarqiyal ko boppam defar ko ba mu am taxawaay bu réy bii nga xam ne am na ko sëñ Ahmadou Diop Paxa sultaanul aarifiina daana wax ne abul muridin bàyyi murid yi Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne ak cëram bu réy ak darajaam ju ak cër bi mu jox Cheikh Ibrahima Fall loola ngay dem fekk maam sàmba Diarra Mbaye gis nga lim bind Cheikh Ibra Fall raw nag maasam te kenn du ko jot Bàmba ko sempi mu raw yaaram bi naam Fall inna suyuqa wa atbaa a maa ñooy say jaraaf ka di seef yaaram bi naam Fall loolu rek doy na Cheikh Ibra raw nag maasam la wax te kenn du ko jot lu tax mu raw te kenn du ko jot Bàmba ko sempi mu raw yaaram bi na sëriñ si ak dongay sëriñ si ñoo di ay dagam bu doonu quartier la général bi kon mooy doon Cheikh Ibrahima Fall loolu nag da ko natt ci léppam ak wilaayatoom ak ab sañ-sañ mag cirub yàllaam ak xam-xamam ak ak tabam ak nga xam ne même ñi gënoon a tabe ci àdduna buñ koy misaal moo leen gënoon a tabe ak jikko yu rafet yi laaj Cheikh Ibrahima Fall yëpp boo demee ci cheikhu maamul ay ni mi nga xam ne moo doon wax ne képp koo xam ne dafa tàmbali ci Cheikh Ibrahima xat foxtar rijal xat foxtar rijal mooy lee maam Samba Jaara waxoon rek yow kat Cheikh Ibrahima Fall kawe nga mboolem góor ñi rijal te aboo rijal la ñu koy wooye aboo rijal nag mooy bàyyi góor ñi

nga nga xam da ci xew ko abu rijal mu wax ne mom momu ne man raama mislaka ajas sharwaaka laysa fil basar ko dajel nga ne ko looy wut mu ne ko melni ni Cheikh Ibrahima Fall mu ne lotu nga ke mom amul ci mbindee fi manam ku da nga da nga wëre wëre wëre wëre ba daj aduna do gis ku melni Cheikh Fall na ku sikk sakka Cheikh Ibrahima Fall mii man sakka Ibrahima Fall ku ko sikk sakk waaye wa fi tariqihi al-kamal fa in lam yatub li dil jalal yara adaban an nakar ku sikk sakk Cheikh Ibrahima Fall sikk sakk aw yoonam bu fekkee tuuboo ko nag boo faatoo nag faw nga mbugal lu tax mu ne mu bañ nga sikk sàkk yoonam mu ne tariquhu xayru turux saalikuhu kafal xarax gadan yakunu kal barax inda dihaami fi lashar yoonu Cheikh Ibrahima Fall mu ne moo gën ci yoon yi saa yoo ko sóoboo nag mucc nga ci lakk te gadan yakunu kal barax inda dihaami fi lashar fi lashar nee na bis pénc booy jéggi siraat rat dangay mel ni melax